xadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan bamtu lu bare bare bari ci xadisu Itaas ibn Saariya def na iyaakum bi muxdasaati l umuur fa inna kulla muxdasatin bidaa wa kulla bidaatin dalaala kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wattandikuloo bidaa muy loo xam ne dañ koo sos ci diine jàppe ko ak jaamu yàlla te bokk ci loolu daana ko wattandikuloo lu bare bare bari di wax ne bépp bidaa nag ak réer la ينتبه عليه الصلاة والسلام نفسي كلا معهم بني كل بدعة كل كبات عرف موي لب موي بدعة بيت أجريه ما تخبرهم خم خم دنيا وحنا كل بابو أمر بني استثناء ما نام جنة وين تدار أمر exception جت بدعة دار ما خم دنيا كوسوس تدين دي كجامو يلا خمنا أجريه موافق الحافظ ابن حجر نون لقواه الحافظ ابن رجب نون لقواه كله كلام العرب لولو ليفري ليك أمور لو خامل من تسكت على رك يبطل من كله لبت لي يبالة نار آية دينا خامل لك لك هم اللي فلان دي يفعل لكو يبطل من بيتك من كله من اسمك هو اللي بنات تسكت لب بتسكت لب أنا لولا يوم كلك أو تجيل دفع أم نار دي يوم خامل فاو جالك دي خامل كو mooy seet ci dara loo xam ne daa ñëw généralisé ñu war caa génne benn exception su dee am ci alquranul karim wala ci kàllaamak arab sax wala ci ñu xam ne loolu ñaari anam la am am na settee goo xam ne texte ne ñëw defaat ko wala settee goo xam ne xelum doomu aadama ci boppam mooy xam ne yii di lépp maanaam settee ga xel da koy def ah bépp seet si bu ñëw nag boo xam ne ñëw na nekk ci alxuraan karim wala mu nekk ci sunna te seet si beneen texte ñëwul ne ah léekat dañ koo généralisé woon waaye xam leen ne nangam bokk ci wala xel mu mucc ñëw ne léekat dañ ko généralisé woon waaye xam leen ne li bokk ci su boobaa xamal ne texte boobee day def kullu joobee day def di tegtale la muy tegtale rek di lépp kullu man alayha faan برم تبارك وتعالى نعمل لبتل نفسك وصوف ليزيخ لم يحسن برم تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في جلال الإكرام لبتل نفسك وصوف ليزيخ كان كنت خمنا من لبتل يوزي بايون داره واحنا نكون برم تبارك وتعالى لك moo koy def moo fi jëkkoon moo fi mujj kon lépp lu nekk ci kaw suuf day jeex foofu kull jooju amul istisna maanaam dara fetteewuñ ko ci loo xam ne du fi des loo xam ne du du day jeex li ko mën di tabaraka wa taala di wax ci ngelaw li nga xam ne moo faagaagaloon noonu yooyee wax ne riixun fiha adabun alim tudammiru kulla shayin bi amri rabbiha fa asbaxu laa yura illa masaakinuhum mais ngelaw la ba mu dikkee dafa alal lépp lan moo fa def ñu seeni kër dafa bàyyi maanaam dafa alal nit ñi kon bàyyi ko kër ya waaye exception boobu nga xam ne moo fa bàyyi kër ya ni ñu ko xame mooy alquran ci boppam moom ko wax waaye su fekkoon ne dafa ne rek su dammiru kulla shay'in bi amri rabbiha te tegu ca leneen kon dañu jàpp ni ngelaw la ba dikkee lépp la faagaagal bam mu jeex dara desul waaye nag bu ne fa asbaxu la yura illa masakinahum xam nañ ne nit ñi la alal ak xëy na jur ga waaye kër yi tabaxoon ولكن هذا ان هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان كل نفس ذائقة الموت بكن بنيك بخير موت جاه كان كنك يكون برم تبارك am xel mu mucc xam na ne te jublu wut suñu borom tabaraka wa lool loolu moom ko di dana gaar suñu borom tabaraka wa am nag ne suñu borom tabaraka wa xabaar nanu ne moom ci boppam yore na nafs nee na wa yuxadirukum allahu nafsa nee na yàllaa ngi leen di wattandikuloo boppam wala nafsuhum kon suñu borom tabaraka wa taala jëmale na kàllaamam nafs ci boppam yoo xam ne kon am na nafs waaye nag ba mu ne kullu nafsin zaiqatul mawt xel yépp àndandoo xam nañ ne keneen a tax ñuy wax ku dul suñu borom tabaraka wa taala kon daal kullu bu ñëwee la cay cosaan mooy lépp lay yóbbaale ba mu des loo xam ne texte alquran daa ñëw wala sunna génne ko ci nga xam ne loolu bokku ca wala xelum doomu aadama mucc ñëw génne ko ci comme misaal moom ñu ngi ci joxe nga xam ne kon loolu bokk kon nag kullu bidaatun dalaala bépp bidaa muy loo xam ne dañ koo sos ci diine te yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam daawuñu ko jaamoo yàlla saa boo ko gisee ci biir diine yonent bi nee na loola dalaala ak réer lay tudd loola nag xel sëppeewu ca dara beneen texte bu nekk ci alxuraan wala ci sunna yëpp dikkul ne lii kat bidaa la boo xam ne manees na ko def ci diine waaye bu baax